moom wax na ñun kon sañ nañoo ñaan mu yàgg fi te wér ginnaaw sëriñ bi daf koo doyloo kon képp koo xam ne sëriñ bi doy na la te sëriñ bee doyloo sëñ bas mii di ko liggéeyloo war sëñ bas mii war na laa doy kon doy nañu kon dañ lay ñaanal nga yàgg fi te wér li sëriñ bi bëgg di la ko liggéeyloo nga am ci lu kawe sa njort waaw loolu rek lañuy la wax ñun nag engagement muy jaayantewaat rek lañuy wax kenn mës sa gis ab néew ñu di ko sang ab néew ñu di ko sang mu naan nañ wëlbati ma wala tàmbaleel loxo bii wala tàngaleel loxo bee ab néew day bàyyee boppam ki koy sang ñun ci loxo yi sëriñ bi noonu lañ fas yéene mel amuñu bëgg amuñu lu ñuy bañ amuñu lu ñuy ñoddi amuñu lu ñuy jeñ man ak mbooleem ñu nekk ci daara ji sëñ Atou li nu àndeek moom moom sosu ko waaye gaynde la ci woon jàmbaar la ci woon am na ci médaille bu ne mooy lan liggéeyal sëriñ bi te bañ a bëgg bañ a bañ féetale sa lépp sëriñ bi loolu nag Mbàkke kon moom ci lañ fas yéene wéy kàddu gu may wax gudul kàddu yu sant la ak ñaanal la ni la sëriñ bi doyloo yàlla na ànd ak suñ borom gën la dëpp kattan ba nga gën koo mën a liggéeyal ndax sagu yoon bi rek la ñor fu ne yaa ngi xool luy tax yoonu murit saa su ne ku ko gis xam ne liggéey bi sëñ Tuubaa bi yemul ak dara dara waaw ndax sëñ Tuubaa mi bind wax ne man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi andiyal xadim bi maa wanaa misli kullu xadim nee na li mu liggéeyal yonent bi amul fi àdduna sosoo ba fii ñu yem ak li nekk suñu kanam kenn ku mës sa defal yonent bi ak ku ko nar a defal lu mel ni liggéey sëñ Tuubaa bi du am kon yow lii nga bëgg te jàpp ko te ci mooy dëgg wéy ci rek nun nuy sa ginnaaw ñun moom armée lañu boo xamante ne ñun ndigal rek ñu yëkkati ndigal rek moo ñu yëkkati armée lañu boo xamante ne kenn ku ne ci suñu biir koo xamante ne di nga doxee nen lu dul lan la sëriñ bi bëgg ak lan la sëriñ bi wax jiite liggéey bii nag lu yomb la ndax wax naa sëñ Muntaxa nee naa ko man de Mbàkke damaa dégg nga wax ne njabootu sëñ Tubaa gii ñii ma bokkal sëñ Tubaa ñëpp ay sang laa leen def ma ne ko ah lenn de moo ma jaaxal. mooy wóor na ma ne loolu nga wax mooy li dëgg ci yow waaye wóor na ma ne ñoom ñu nga def ay sang yow lañ yaakaar ginnaaw yow yaa ngi leen def sang ñoom ñu yaakaar la kon yaa ngi wan taalibe yëpp wan mooy lan moo yoon bi mooy lan kon ak taalibe ngay jàngale kon nun man mii de nekk ci ñu ne maa nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah fu ma gessoo dinaa gis ñoo xam ne ku ci ne gis naa ci yow lu tax ma jàppoon ne maa war a topp sa ginnaaw waaye dogal bi jëw ñu ne man maa ko jiite